ويبسطون وإليه ترجعون yàlla ne ku ma lebal benn ma fay la fukk ku ma lebal fukk ma fay la téeméer ku ma lebal téeméer ma jox la junne àll ne nii génn rek muy def pass mu ne nii man loolu la sant ba saa dem bu mu doxaatee tuuti saa ngi mën a toog wa ma Allah yàlla ne lu ngeen jiital ci lu baax bu ngeen ñëwee fekk sant yoonu kenn alal doxee tuuti jaalibi bi ne te man yaamal misqaala zarratin xayran yara wa man yaamal misqaala zarratin charran yara yàlla ne ku def lu toll ni bépp suuf ci lu baax boo ñëwee fekk ko fi ku dee lu bon boo ñëwee fekk ko fi àll lay wàññeeku. ndeysaan yow monsieur le maire nga baal wala jigéen ñi nga yow sànni sa dëkk bi dañoo dépense. muy dóor kan la. dimanche jotoon na. àll la jotoon na. jigéen ñi yàlla na yàlla def. taf seen jigéen ñi yàlla na yàlla def seen góor yi yàlla na yàlla def yenn saa su ma demee conférence a xat damay wax jëlee leen góor ñi jigéen ñi jigéen ñi saraxee góor ñi naan sa waay jàpp na ko jël lebalee naa la ko ñetti téeméer jëlal ah li ko kañ rek benn waaye daje moom Alioune mu ne ko la baykat mu ne ko ñetti at ci maa ngi wër xeetu gi leen ji amoo Alioune dimbali ma jaay am ko ku am ñaari junni am ko mais man maa ngi koy. mu saaga benn baat ñaari baat ay cëram di feeñ doom jamuy yar su màggee noonu lay mel. jigéen yonent yàlla Muhammad ne al adaalatu lil ummi laa lil abi jigéen yar mais góor du yar. ku dul jigéen. jëkkër ji day taxaw di xaar. gas benn kàmb bu fekkee ni jigéen la mu suul ca biir dem mais ku ne dindi loolu te islam Seydina Omar ibn Khattab foofu lay jaaree curité dañu koo laaj ne moo la gën a naqari ci àdduna mu ne ñaar mu ne ñaar a nii benn bi su ma ko fàttali damay ree sama yaram koy sotteeku mu ne ko ba ma ko fàttali damay jooy ba kenn dootuma mën a téye hmm. dina ko mën a ban mu ne avant dugg ci diina yonent yàlla Muhammad ñun tàndarma lañ doon jaamu tàndarma yi ngeen di ndogoo moo nekkoon suñu yàlla Omar ne mu am Omar ma demaat xiif yi gën a tar ma ne xaaral ma àggale yàlla ji rek su ma àggi wutaat beneen yàlla daal di lekk yàlla ja Omar ne su ma fàttalikoo loola damay xam ne man dof laa woon am bis. sama xol jeex nee na waaye ma xool xale bi. nee na sama xolu kéefar jàpp ma ma ne ko doom kaa ñu ànd jàpp ci loxoom bi dem. nee na ñëw ba benn àll may gas mu naan ma papa looy def nii ma naan ko baal ma ba ma pare nee na may gas suuf si dal sama sikkim nee na sama doom dama ko fa xasal papa yaa ngi takku suuf bi ma doom ba ma pare nee na ma gas kam ba ma bàyyi looy def nii. ma yokku ci biir mu ne ma bàyyi ma def nii si gi xool ma ma ne ko doom jigéen nga da ngay tas àdduna da yàq jikko bàyyil ma suul la nee na sama doom jooy nee na ma xool sama doom jékki-jékki rek sama xolu kii fa jàpp ma ma suul ko wal ko ginnaaw omar ne saa yu ma fàttali xool yi damay jooy ba sama xol jeex mais jigéen booy sëy bëgg am njaboot ju baax booy sëy bëgg am teraanga da jàppale sa jëkkër dinaa koy wax toujours Fatima doomu